alxuraan lim nu jàngal mooy nan jëf nan góor góorlu waaye résultat nag nekkul ci suñu loxo ci loxo yàlla nekk sabab boo mën a sabab la jàppal ni sabab képp lay tekki waaye résultat bi ci loxo yàlla nekk moo tax toujours nit dina jaar ci sabab nga gis mu réussir ci keneen jaar ci même sabab ba esec loolu mooy nit suñu boroom mooy compte moo compte mooy dox ci coobareem la lépp di dox suñu borom nag moo bind mbindeef yi bindaale ci bind ak ñàkk bind am koom waaye dafay bind ak ñàkk koom lu ci ne ngir di ko nattoo doomu aadama ba xam ba xam nan lay taxawee li jëpp ab nattu doon ci nit ki noonu lay bindee ak ñàkk akum koom mu doon sababu jaamu yàlla mbaa sababu mooy yàlla ñàkk mën naa sabab ak jaamu yàlla mën naa sabab ak moy yàlla am koom mën naa sabab ci nit ki ak jaamu yàlla mën naa sabab ak mooy ko ay nattu lay suñu borom di nattu nit ki loolu tax suñu borom wax ni wa nabluukum bi charri wal xayri mooy danañ leen nattu ci aw yiw ako ay ibnu abbas bu nga firi dafa wax ni bi shiddati war raxa mooy yomb ak jafe suñu borom nattu nit ki ci yomb ak jafe dana ko nattu ci am koom akuk ñàkk dana ko nattu ci ak wér akuk wéradi dana ko nattu ci lu araam ak lu dagan lu ci ne rek suñu borom dana ci nattu xool ba noo cay doxe mu dellu it wax ci alxuraan dana jox nit ki am koom waaye jubluwu ci teral dana xañ nit ki am koom waaye jubluwu ci doye dal ko waaye nattu la nattu la ci jublu moo tax nag mu ni fa amal insaanu mu mubtalaahu rabbuhu fa akramahu wa nahamahu fa yaqul rabbi akrama waaye nit nag nee na ni mu baaxoo mooy saa bu ko sunu borom alal jox ko ko jox ko xéwal day jàpp na wax yàlla teral na ma fi mu toll waaye fekk ne xamagul ne mën naa am loolu du teraanga fi mu toll daal ni nit ki saa boo ko suñu borom natoo manquil wërsëgam mun yàlla def maa doyal la te moom loolu mu jàppee ak doyal la mën naa am sax suñu borom teraanga la ci jublu waaw dafa dafa doon ko xereñ te sewer ni te xaw a jafe ay mbir tuuti suñu borom lam ci teg mooy kàlla déedéet mu ne déedéet ni ngeen ko jàppee du loolu du du du caagee ni xéewal gum doon teraanga la du caagee ni natt bu mu doon ak doye la yàlla dana teg nit ki lu metti waaye da koy jubloo teral dana jox nit ki xéewal waaye daf koy jubloo nattu rek te mën naa am sax loolu toroxtaan lay doon ci moom kon nit ki mënta ñàkk xam loolu ngir ma nekk dëgg-dëggi eh, jaamu yàlla di dund ci ak ngëm te jox boppam yàlla ba nu mu dogalee rek mu d'accord rek moom ci noonu